That. aywa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. maa ngi wax mbir mi ci mbégte du ma ko wax ci kàllaama tubaab sax dama koy wax ci olof lii mbégte bu rëy dama dem Mauritanie man suma boppam man mii ambassadeur Essa Bokarr Sy Ni, ñoo ma fa terangal terangal bu rëy jamono jooju former minister of lands la àndal ki nga xam ne moo jiite turam bu tedda bi dinaa ko read yépp adjudant chef Saloum Fall moom mooy head of the fleet ninety nine moto yu jóge ko Mauritanie ki dendoon man nii moo di Souleymane Diédhiou moom moo dawaloon oto bi delloo si ñu euh, bi jóge ko mu nekk euh, ku represent Gambia foofu euh, ambassadeur His Excellency Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Gambia in Mauritania, Sheikh Omar Fay, uh, nek uh, ben uh, mbokk moo xam ne jarul ma wax ci lu bari ba ma àggee lam fa def dama dama mujjee sax xam nga gor soo ko tereree ba rus ambassadeur Omar fay di ma ko ko dee wax du jaay ko waaye yalla ko mool mu nekk diplomate moom diplomate la naturel yi noonu la ko yàlla defare alhamdulilah ci loolu te ñii definitely délégation yi bëri nañ waaye ku ci mel ni adjudant chef Saloum Fall mii euh, honestly gërëmaane mooy maa ngi gërëm yàlla yi julli ci yoon daal bu tedda ba pare itam nag di gërëm président bi Adama Barrow mm-hmm. waaw xam nga du waxi politique lii national standing laa fi nekk republican standing Eh, kii nga xam ne mooy ambassadeur Faye throughout coordination bi maa ngee jokkoog moom xam naa yépp mhm. bañ egsi ba fii so moo tax na bi ñëwee payma et côté si call ma ne lii nag dañ ko war a def àdduna gis ko parce que nit ñi dañ war a xam mhm. Mauritanie dañ def lu rëy ok soo gisee nag ñoo mun koy am jàmma la seen président bi am ak suñ président mhm. seen président bi mu ngi tudda His Excellency the president of the Republic of Mauritania Mohammed Ould Cheikh Al Ghazali bëgguma jub ci tur bi ne kilifa bu mag la te biñ fa demee joxe nañ fa speech soxna mu ngi fa woon mm-hmm. bég ci lool moom ambassadeur Faye mii moo ñëw wax ma ne soxna président bi mu ngi fa mm-hmm. so il faut nag euh, suñ euh, lu baax amee nañ ko wax àdduna gis ko loolu mooy dëgg Cheikh Omar Faye euh, definitely rusloo waloo ñu Mauritanie man mom bi ma leen gisee rek dama kontaan ma dal bii moom delloo njukkal daal mu ngi ci sama waaw man loolu laa bëggoon a wax jërëjëf euh, shukran ya President Chef Saloum Fall. Thank you very much. My special forces. Suleiman, ya Excellency. Vraiment kontaan naa nit ku baax nga te ku bugg a sa nga. waaw xam nga ah suuf su fekkee ne am na lu tuuti. loolu yow yaa dee wax naka ah, xubbul watani. minal iman. yàgg te dama ko day wax ma ne. faman amila saalihan. fali nafsihi wa man ada fa alayha. waaw ah, yow xam nga li ñoo wax. kon bu boobaa itam boobu dama koy bugg di indil nit ñi bi ma dal mooy ñii am na ku ma fa oo Mauritanie mu ne ma ñun de dinañu invite ma ree ma ko yéen a moom conférence Mauritanie la la conférence vous appartient mm-hmm. parce que action bi ñu def loolu mooy wane mbokki jullitam dëgg la alhamdulilah action bi ñu def. waaw loolu wa taawanu alal birri wa taqwa. exactement wa'tasimu bi hablillahi jamian. exactement wala tafarraqu. that's what Mauritania has done. definitely so. ambassador dëgg dëgg waxtaan naa ci ambassador. te ni nga ñëwee ci office bi fii. ak ni doon jokkoo balaa ngeen di ñëw balaa oto yi. di ñëw yow dara lu ñuy wax mooy yàlla jërëjëf. jërëjëf yàlla. yàlla na yàlla jàppale Gambia. amiin yàlla. jàppale président bi fi jiitu mu di Adama Barrow. jàppale ñi nga xam ne it ñoo ko fal. ñoo ko fal mu na yàlla jàppale président ni Mauritanie jàppale ña ko fa fal mu di nit ñi. dëgg yàlla jaaree. dëgg la ngeen jëf. ambassadeur du mu mën a dog waxuñ ne. sa taxawaay dafa rafet ba ngaa nekk ambassadeur mhm. Taiwan la France la Washington DC mhm. moo tax bi ma ñëwee ma jox la laaya alxuraan mhm. ne la ñi xam ak ñi xamul duñ mun a nekk benn waaye yàlla nag ba mu ko paree dafa ne man maa borom xel yi ñooy wax a yatazakkaru ulul albaab so sa taxawaay rafet na ambassadeur Yankuba Diba yow nga nekk naa nga nekk naayib bi hey imaam ak i yëpp imaam lañ. exactement te lii nag es li ma bëgg a ñaan ambassadeur. waaw pour wan réew mi ne lii. waaw lii du yëfi du yëfi xeet. du yëfi politique. du yëfi pa léegi dañ war a teg yëpp ci suuf. yàpp na ñëpp dublu Gambia. alhamdulilah comme li nga wax rek xëbbul watani. minal iman maa ñaan loolu ci sa office. waaw ci sa barke Bokar si bi nga xam ne dafa liggéeyal réew mi. ak ñoom chefo Aboubacar ak kilifa réew mi yëpp. nga xam ne sa cosaan fa la. maa ngi ñaan ne lii. amiin ne leen ñu fexe ñu gis Gambia. yàlla moo ñu jox cër bi. dëkk bi gën a tuuti. wallaahi di umma. wallaahi yàlla xam na ne lii waaye dafa ne ñii foog ma jox leen chance. waaw liggéey. waaw moo leen fay. kon Gambien bu nekk. na taxaw tey ne. incha allah OIC bi la. yal nañ commencé ci bismillah. amiin wutal ko ci alhamdulilah. président Barrow ñu ne mooy di président of peace. noonu lañ ko tuddee Mauritanie. waaw waaw ñu ngi ko tuddee Raïs Salaam. waaw ñu ko peace. award ah, President Excellency Correct. Correct. Mauritanians in Gambia are in peace, exactly. and him and Gambia have come a long way. Exactly. He anything you people want, exactly. this is the man. Exactly. In a heartbeat, we'll make it happen. But everything is organized by the president and his foreign ministry and the OIC CEO. Exactly. we are just executing. Exactly. ñun bàyyi faal lañ this is it and es uh, ñu ngi laa ndokkale waat kon naa ne boo ma ne du góon naa fi suma diggante yow yàgg na waaw waaye depuis sandam waaye boobu wax yi beneen bés la xam naa ne sécurité bi itam yeneen ci kawam yow you are back sof you are jack of all trade <laughs> su ñëwee ci diplomatie nga joxe si sa xam-xam waaye es su ñëwee sécurité ku dem ba liggéey Louisville Kentucky liggéey ay state dipal liggéey ci FBI ko pour jay mais you have capacity Gambien yi nañ bu am dara nga recognize ko wax sa mbaax yi morom dara wàññiwul sa mbaax dëkk bi dafa tuuti te am nañ fi ay borom xam-xam nañ leen ñu ona leen ñu ngeen dokkale ñëpp wa ma dalika ala llahi bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh